asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu suñu mbokku internet yi suñu mbokku téléspectateur yu TMS TV ñi ngi am mbégte di leen ziar di ànd ak yéen ak la TMS TV di tele bi nga xam ne moo feeñal lépp lu nëbbu làmboog njëriñ ñu ngi ci ànd ak yéen ci waxtaan bu rëy bi nga xam ni moom la ñuy wax émission li ci Guinée ñu am toujours mbégte di ci ànd ak le xalif général l'empereur le roi médecine traditionnelle du monde the king of the king le bourreau des dëmm le roi des rois xalif des xalif le bu sponsorisé par Allah di Alaaji Thierno Moule Sow mi nga xam ni euh, kenn dootu ko présenté ci àdduna mu nekk le petit fils de Soundiata Keita de Nima Tengala de Yoro Tengala de Sogolo nekk doomu soxna Ajaratu Mariama Kamara ak Mamadou Aliou Sow yàlla yàlla yokk ay leeram euh, di ziar Prince Moule di ko ñaanal mu dem ba sut ay waajuram sut le monde entier di ziar madame Sow la ren di ziar soxna um di ziar képp koo xam ni yaa ngi safoo yaa ngi am mbégte di bàyyi xel xal xalif général di Alaaji Ceerno Moule Sow bi nga xam ni nee naa bi yàlla mayee may yonent yàlla Suleymaan mu wàcc di duma juma yi di leen tuubal sëriñ bi la ci teg nga gis ni muy def ay kiiraama yu am solo ci Sénégal ak le monde entier kon sëriñ bi kenn amul fayam dañ koy bàyyee ak yàlla suñu borom euh, nga xam ni jinne yi gën a dangereux ci monde bi sëriñ bi moo leen jàpp tuubal leen téye leen ci këram rawatina Guinée bi ñuy wax le roi haha bi nga xam ne moo daaneel bateau Titanic bato Titanic daaneel bateau la Joola bi nga xam ne ñaari junni ak doomu aadama ñoo ci faatu dans l'histoire du monde loolu musul am ñu ne kan moo ko téye jinne boobu ñu ne la xalif général di Alaaji mu Mulay Sow ñu ne moo téye jinne maam Kumba Làmb moo téye mboose Kumba jigéen téye jinne yi gën a dangereux ci monde bi ba pare daal leen tubal kon kooku defe naa ni Euh, jar na santaat bu baax a baax jar na ñaanal parce que xam ngeen ni jinne yi rab yi procureur mënul ci ñoom dara commissaire mënul ci ñoom dara alkaati yi mënul ci moom ñoom dara alaaji Ceerno Moule Soore mu ñoom moo mën ci ñoom dara kon ñi ngi amati mbégte di ànd ak yéen ci la TMS TV di émission bu mag bi di li ci jinne alors sëriñ bi ñi ngi lay ziaraat di am kontante di la jox sa wàccuwaay di la nuyu di la dalal ci émission li ci jinne alhamdulilahi rabbil alamin auzu billahi mina shaytaani rajim wala xawla wala quwata illa billahi azim gannaaw ba ñu sante yàlla ñu ngi julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi nuyu mbokku àdduna bi yëpp di nuyu mbokku taalibe yi macha allah di kontaan bu baax a baax Moustapha ci émission bu mag boobu noonu macha allah mooy li ci jinne di émission bi nga xamante ne macha allah àdduna bi yëpp dañ koy xaar di ko taataanne macha allah ndax njëriñ kese la. ndax li liñ ci wax njëriñ la day yeete day dimbale macha allah ñu bëri ñi nga xamante ne dañoo réeroon bu ñu seetaanee émission bi macha allah dañuy dindiwaat macha allah kon nag di sant yàlla bu baax a baax di nuyu aussi euh, sa invité bi Saliou di nuyu ñëpp ñi nga xamante ne ñoo ñuy seetaan di nuyu chef de secrétariat ma mule di nuyu aussi euh, Pape ci caméra bi macha allah ak mbay di nuyu ñëpp ah ñoom Alseni Silla mule ñoom Yatma di nuyu aussi suma ñaari agent secrétaire yi macha allah. Baye faal macha allah ak champion konaate macha allah di nuyu ñëpp di sant yàlla bu baax a baax di julli ci yonente bi di ñaanal ñëpp jàmm macha allah naan leen asalaamaaleykum wa rahmatullah di nuyu macha allah madame Sow la reine ak prince Moulé di kontaan bu baax a baax ak sama taalibe yi nga xamante ne dañ may seetaan di ma bàyyi xel di kontaan bu baax ci weeru koor gi macha allah ñoo ngi ci kawam. Eh, lépp lu ñu woor rek yàlla nañ yàlla nangul yàlla nañ yàlla defal jàmm ci barke yonente bi sallallahu alayhi di kontaan bu baax a baax Moustapha. jërëjëf euh, sëriñ bi kon waxtaan bi nag euh, ma ji ci ànd ak euh, comme d'habitude sëriñ Saliou Samb nga xam ne xam xamee ngeen ko ci TMS bi kon Saliou. Mhm. ñu ngi lay nuyu di ànd ak yow ci émission li ci jinne. <coughs> maa ngi lay fay Moustapha di kontaan di bokk ak yow plateau bi di li ci jinne di nuyu ki nga xam ne mooy xalif général des jinne le roi de la médecine traditionnelle di ko jox ziar di ko jox wàcc wàccuwaayam di nuyu aussi mbokk internautes yi mbokku téléspectateurs yi safoo di seetaan TMS TV so ladies and gents uh, thanks for following channel and welcome to your favorite broadcaster, you know, uh, Liti Jine. We are with the Khalif General of the Jinns, the king of all the kings, Moustapha. Hmm. jërëjëf euh, Saliou alors tey nag euh, suñu mbokku internet yi suñu mbokku téléspectateurs yi. Mhm. ñu indi leen tey thème bu doy waar muy dëmm xam ngeen ni fan yii yëpp yéen a ngi seetaan ci TMS TV euh, li ci gën a liñ ci gën a waxtaan fan yi ci clinique le Khalif Général muy mbirum dëmm temps yi moom gën na ci ci ci. ci ci clinique ba moo tax ñu indi temu dëmm euh, bu ngeen xoolee amoon na fi at ci ginnaaw mosoon nañ leen fi indil benn émission bu am solo jëm ci wàllum dëmm kon dañu indiwaat thème bu mel noonu fas yéene ko càmbar bu baax a baax a baax parce que defe naa ni kenn moo mën ci ñoom dara muy le xalif général di alaaji Thierno Moule Sow kon sëriñ bi ñi ngi lay ziyaaraat di la jox sa wàccuwaay euh, di waxtaan ak yow nag thème bi nga xam ni muy dëmm nekk tom thème bu doy waar thème bi nga xam ni dafa lëmbee jamono sëriñ bi ñu bëggoon xam rek lan mooy dëmm ak fan la pouvoiru dëmm mën a yegg. waaw macha allah Moustapha macha allah dañuy sant yàlla bu baax di julli ci yonente bi ci question bi nga ma laa janaa ci sawara a tontu muy wàllu dëmm. dëmm nag macha allah am na dëmm am na nooxoor macha allah dëmm nooxoor am na. dëmm dafa bari façon am na dëmm bi nga xamante ne dafa lekk ba mënatul lekk ba regg moom la ñuy wax nooxoor. am na dëmm activité dëmm bi nga xamante ne dafa nekk ci activité macha allahu euh, nekk ci digg dooleem nekk ci digg ndëndëm di lekk am na tamit dëmm bi nga xamante ne dafa lekk ñu jàpp ko mu jëfaru mooy comme dëmm yi may jàpp ñu jëfaru su ko defee suñu jëfaruwee euh, ma dindi euh, dëmm bi ci ñoom dootuñu mun a lekkati waaye dañuy doon dëmm dañuy yor xam-xamu dëmm bi lu dëmm yi di def ñoom dañ koy gis dëmm yi bu ñuy naaw dañ koy gis bu dëmm yi di lekk lu dëmm yi di pexe ñoom dañ koy gis waaye du mun a lekk dëmm nag macha allah dana dana nekk ci nit maanaam nit nit mën na nekk dëmm jinne tamit dina am ay eh, dëmm ci jinne maanaam nit dana nekk dëmm jinne aussi dana nekk dëmm dëmm nag xam-xam la bi nga xamante ne xam-xam bu doy waar la xam-xam pouvoir la bu bon sax bi nga xamante ne euh, macha allah loolu depuis jamono yonente bi la maanaam dëmm depuis jamono yonente bi Muhammad salaa salaam ndax loo fi gis tey rek loolu maanaam lu yàgg la fii macha allah boo xoolee jamono yonente bi am na ki nga xamante ne ci saxaaba yi Euh, bakkanam doon génnee deret macha allah nga gis ñenn ci yenn saxaaba yi ñu def seen loxo nii euh, ki deret bi daa di kii ñu tourné ñu yaakaar ne dañ koy tuur ndekete dañ koy nekk di ko di ko naan dëmm baatu dëmm bi foofu la soqe maanaam kuy naan deretu nit dëmm nga kuy naan deretu nit rek yow dëmm nga waaw loolu mooy dëmm kuy naan deretu nit nit ni yow ngay naan deretam rek yow dëmm nga dëmm nag macha allah dana nekk góor dana nekk jigéen dana nekk mag dana nekk ndaw mën nga takk nit fekk dëmm la te doo ci xam dara saa yu guddee bu maanaam bu guddee bu suuf seddee mu daal di génn parce que ñoom euh, seen ruuxu la ñuy utiliser mun na génn ci ruuxam dem bàyyi xottu bi carcasse bi bàyyi yaramu nit ki nekk ci kër gi mu daa di dem mun na dem ba France mun na dem ba Italie Allemagne Amérique mun na dem partout dans le monde maanaam dañu yor xam-xam bu garaaw mun nañ soppaleku nekk golo mun nañ soppaleku nekk muus mun nañ soppaleku nekk xaj mun nañ soppalee ku nekk gaynde aussi bëri na ay melokaan yi ñu mën a mel ñoom dëmm yi xam-xam la xam-xam bu bon macha allah ci biir nit ñi la ñuy vivre ci biir nit ñi la ñuy dund macha allah boo amul bopp nag doo ko teel doo leen teel a ràññee doo leen teel a comprendre waaye buñ la toppee lu ci bëri da nga leen di gis ci gént dañu lay ñëwal ci ay nag ñëwal la ci ay fas nga leen di gis ñu lay topp ci ay mbaam ak ay xaj nga nga xam ne carrément boo tëddee guddi bu la nekkee yàlla dalaa may bopp soo tëddee guddi da ngay gis dëmm bi da ngay xam ne diw mii kat biig ci man la fanaan dëmm nag macha allah dafa bëri ci dëkk bi dafa bëri ci dëkk bi te moo ngi lor askan bi waaye nag dafa nekk li nga xamante ne mënoo ko wax fenn macha allah ndax nag euh, xam-xam la bu ñuul la bu làqatu bi nga xamante ne euh, bu ko nit ki di def du ñëpp ñoo ci mën a teg seen bët foog nga am baatin nga mën ko xam macha allah dafa nekk nag di sonal askan bi boo xoolee lu muy rey par anne dafa bari ay milliards de personnes ñoo ngi dee ci année bi ñoom ñoo koy def boo xoolee accident yi bëri ñoo ngi am ci dëkk bi aussi ñoom ñoo koy def parce que dañuy topp nit ki benn dañ lay feebarloo mettiloo sa bopp wala mettiloo sa biir wala sol la ngelaw sa biir di metti sa fit bi du toog dañuy jël sa fit bi sax dem denc ko aj ko aj ko ci ay garab wala yóbbu ko seen biir xàmb yi su ko defee nit ki day feebar su amul garab du yàgg mu faatu su demee hôpital di faju buñ defee analyse def ay rajo du ñu gis dara ñu ne eh, yow gisuñ ci yow dara fekk bu guddee doo am jàmm kon dëmm dafa nekk lu doy waar nit yaay lay doon nag xam-xam bu bon lay yor bi nga xamante ne day naan deretu nit di lekk yàppu nit eh, ñuy dégg ñuy wax nooxoor waaw ñu bëggoon xam sëriñ bi lan mooy différence entre dëmm ak nooxoor waaw nooxoor mooy ku retraité ki nga xamante ne dafa lekk ba regg ba retraité kooku mooy nooxoor wala dafa lekk ba nga xamante ne ne moom dèjà bloqué nañ ko ba mënatul lekk ku mel ni Thierno Moule Sow bu jàppee dëmm da koy bloqué ba dootoo mën a lekkati nit kooku mooy nooxor mhm. xam-xam bi dafay nekk expérience bi dafay nekk mhm. day am gis-gis ji waaye du mën a jëf def dara du mën a jëf loolu mooy nooxor mhm. waaw macha allah ku dem ba tuub ba ba bàyyi lekk maanaam def na lekk na ay milliards de personnes lekk na ay million de personnes kooku nag loolu moom la ñuy waxee nooxóor parce que ñenn ñi sax dañu mujj après nekk ay sëriñ di faj parce que day fekk nañ ñoom euh, pexe dëmm yëpp xam nañ ko su ko defee am nañu sëriñ yu bari ñi nga xamante ñenn ñi sax euh, boo xool dañ naa ne kii dëmm la woon maanaam day mujj nekk sëriñ sax di faral di faj yooyu yëpp gis nañ ko fii macha allah. voilà Moustapha moo posé ko benn question xalif général jin ñu ngi lay ziaraat di la jox sa wàccuwaay. Hmm. ñuy laajte euh, maanaam xam-xamu dëmm boobu gisoon nañ fi benn xale bu jigéen bu xam ne miinoon na kër gi ci vidéo yi mu ngi wax ne maamam moo ko jàpp. dem na sax ba joxoon yaayam dañuy laajte naka la loolu mën a nekkee maanaam yow nga nàmp ci sa weenu yaay moom mu nekk dëmm am xam-xam dëmm te yow amuloo ko yow miy doom ji est ce que loolu naka la mën a nekkee waaw macha allah Saliou Samb question boobu am na solo euh, mun nga jur nit euh, yàlla dimbali ko mu bañ a nekk dëmm fekk yaay bi dëmm la euh, wala maam ji dëmm la loolu day am ndax dëmm aussi mun nañ ko jàng mm-hmm. xam-xam la bi nga xamante ne dañ koy jàng jàng bi mooy lan soo dajeek dëmm bi bu toggee yàpp nit bu la ci mosalee nga lekk rek dugg nga nekk nga dëmm su ko defee ñu noonu ngay duggee ci wàllum dëmm wala nga nekk liir nekk sa biiru yaay mm-hmm. euh, dëmm yi dem rëbbi ñu romb la nga ñaan ñu may la nga lekk nekk nga dëmm loolu it mën nga nekk dëmm wala aussi nga nekk dëmm euh, nit ki nekk dëmm mm-hmm. euh, dem lekki ñëw may ci doomam mu lekk loolu it mën na nekk wala nit ki nekk dëmm aussi ëmb mm-hmm. fekk durant ëmbam lekkul kenn xale boobu mun na sauver ba bu juddoo du nekk dëmm mais rarement nag euh, la waaw rarement la nit ki nekk dëmm yaay maanaam yaayam nekk dëmm du nekk dëmm loolu rarement bariwul mhm. loolu bariwul waaye am na aussi am na ci ñi nga xamante ne ndeysaan du ñu nekk ay dëmm dara dañuy màgg rek ñu dugal leen ci dëmm wala ngay dem di jàng ay xam-xam dajeeg dëmm mu sol la xam-xam mu dëmm yooyu yëpp gis nañ ko fi mhm. macha allah moo tax dëmm nu ne la la mën a dikkee daal macha allah moytu rek euh, ak ku yàlla dimbali rek. macha allah kon xam-xamu dëmm mën nañ ko jàng. dañ koy jàng waaw am na ñi nga xamante ne ñu bëri dugg nañ ci wàllu dëmm macha allah euh, du ñu ay dëmm dañ leen jàngal parce que dafa am nu ñu lay jàngalee ni ñuy naawee ni ñuy lekkee. Hmm. loolu kay bu ko nit ki jàngee bu yàggee kay boo mokkalee dëmm ngay doon. Hmm. bari na ñi nga xamante ne ay dëmm la ñuy doon. ñenn noonu la ñu duggee ci ay dëmm. dañoon la ñuy duggee wala soob rek bëgg xam-xam. bëgg pouvoir rek. dem rek ñu dugal la ci xam-xamu dëmm nga daal di nekk dëmm adhéré di lekk nit ñi mais xam nga ne. fii moom boo fi nekkee dëmm moom da ngay weeru boo dajante ku mel ni Thierno Moule Sow da lay toroxal. Mm. xam nga ne dëmm yi man ñemewuñ ma. Mm. Mm. macha ba léegi yéen a ngi ànd ak euh, ñun ci émission euh, li ci Guinée di émission bu mag bi ak euh, le xalif général di El Hadj Thierno Moule Sow ñuy am toujours mbégte di ànd ak moom ma di ci ànd ak sama naataango Saliou Samb. sëriñ bi dañuy gis ñu bëri gëmuñu ni dëmm am na te saa su ñu gis dëmm yi di def ay ay ay ay ay ay musiba ci ci ci réew mi ak ci àdduna loolu nan nga ñu ko mën a expliquer. waaw macha allah Moustapha ñii wax ne gëmuñu dëmm ci publiquement bi rek la ñuy wax gëmuñu mais bu ñu weetee xam nañ ne dëmm am na waaw. parce que gis nañ bés bu ne jinnee di def seeni i seen loraange. ku la wax gëmul dëmm. ci publiquement mun na wax gëmu ko mais su weetee muslu ci dëmm ndax dëmm lu am la fi lañ ko fekk fi lañ koy bàyyi. Mhm. waaw ndax loolu. ndax ñoom normalement sax suñu borom dafa leen waroon defal ay béjjén. pour nit ñi mhm. xàmmee leen ci biir mhm. nit ñi dëmm yi dañ leen waroon saxal ay béjjén. effectivement mais sutura yàlla moo tax ñu ñaan yàlla deful loolu waaye normalement dëmm bu ne dafa waroon am ay béjjén ba nga ñu xam ne nit ku ne soo nekkee dëmm nga am béjjén bu feeñ ci yow. Mhm. macha allah waaw ñi lay gën a weddi nag dëmm amul boo xoolee ñenn ñi sax ay dëmm la ñuy doon. am na ñi nga xam ne dañ naan dëmm amul dëmm amul boo xoolee ñoom seen biir ñoo nekk ay dëmm yi. parce que fu ñuy waxtaanee dëmm amul ñuy jéema a boo xoolee kooku mën na luus macha allah dëmm nag lu am la aussi. ndax fii lañ ko fekk day lor nit day lekk nit day naan deretu nit. day lekk nit maanaam dañuy lay fàtt doo mun a nooyi jël sa fit yóbbu teg la feebar nga yóbbu nga dem hôpital dem clinique du ñu gis dara gars yi dof loola sax ñenn ñi dañ leen di joxe dañ leen di fayee bor maanaam da ngay day am ku nekk seen famille nekk dëmm di lekk di lekk di lekk di lebu léegi nag. ñu ne ko nag dangay fay ki ngay fay mooy sa doom bu la gën a jege wala sa jabar wala sa sa sa jëkkër wala sa yaay wala sa mbokk wala sa xarit ki lay jëriñ ki ñoom kooku la ñuy bëgg nga fayee leen ko boo leen ko fayeewul ñu daal di koy lekk dëmm lu bon la lu yées la xam-xam bu yées la ci xam-xam yi xam-xam bu bon la xam-xam bu bu bu maanaam foo ko nattu ci bon. Euh, macha allah. Mm. du romb foofu. Mm-hmm. alors mhm, barki démb ba xale bu jigéen boobu may wax ba léegi mu ngi wax ne euh, maanaam maamam dafa téye ay sowam mu nekk lu doy waar nga xam ne moom mënul dem toilette mënul tuur ndox ñuy laajte aussi dëmm naka lay jàppe nit moom pour mu jàpp la il faut mu jox la nga lekk dara wala naka lay de ban xam-xam ba mën a téye sa maanaam sow wala mu téye sa yeneen cër wala teg la feebar. waaw dëmm macha allah mun na la jox nga mun na la bañ a jox nga lekk mun na la bañ a jox nga naan. mais ñoom dañoo yor pouvoir dañoo yor xam-xam mun nañ la solu mun nañ la dugg dañ lay dugg nu mu ko duggee nekk ci yaramam bi di wax ci yaramam comme di duggee nit waaw nu mu ko duggee nu mu ko duggee nekk ci yaramam euh, ba ba di wax ci moom mhm. noonu lay mën a bloquer saw yi parce que instant bi éliminer ko rek lay bëgg parce que commencé na ko weer mhm. da koy bëgg a éliminer rek moo tax mu téye saw si mun na ko maanaam bloquer saw bi bolokeekat yi dem wanag bi. pour mm. pour pour faagaagal ko rek maanaam loolu la ciy jublu. Mm. moo tax dëmm lu doywaar la moo tax xaritoog dëmm sax baaxul xamanteeg dëmm baaxul mbokkoog dëmm baaxul ndax dëmm day war. Mm. boo gisee warkat dëgg mooy dëmm ndax nit jur nit. jur nu mu neexee nga lekk ko loolu dëmm rek moo ko mën waaye yaay ju xam nga ne yaay yaay nu mu mel ci doom yaay ju baax vraiment su juree doomam daf koy bëgg waaye dëmm rek mooy jur nit lekk ko dëmm kese mooy jur nit lekk ndax dafa nekk xam-xam bi nga xamante ne dafa garaw moo raw drogue xam nga drogue moo raw drogue maanaam xam-xam bu bon la mm-hmm. la bi nga xamante ne euh, moo raw drogue moo gën a garaaw baaxul dem auzu billahi mina shaytaan rajim xam-xam bu bon la mm-hmm. waaye nag am nañ ay musluwaay yi nga xamante ne dinaa la solal yëre weñ solal la tubay weñ solal la mbaxane weñ solal la euh, ku fa nawe ñanne ñaama ñaama waataama ñaama dëmm duñ la munal dara mhm. duñ la munal dara man dinaa protéger nit ki ba dëmm bu jógee ci nit ki du ko gis satolique bi day fay dëmm yi bu ñu jógee duñ la mën a gis mhm. loolu baatin la xam-xam boobu tamit am na fi mhm. ndax ñoom dañu doy waar mun nañ la yónnee jaan màttul la jaan yónnee la jaan pour jaan bi ñëw rey la mun nañ yónnee ay muus mun nañ envoyé lu ne pour ñëw euh, faat la wala pour ñëw dofloo la wala pour ñëw indi la jafe waaye ñun am nañ ay baatin yi nga xamante ne su ma ko defee macha allah ñoom seen bopp duñu la gis bay ñëw ci yow. Mm-hmm. am na wolof yu koy tuddee nitu guddi dafa mel na ñoom seen pouvoir kon balaa muy fës rek guddi jot wala. waaw macha allah guddi la ñuy gën a am doole même bëccëg bi dañuy manipuler ci nit ki sonal nit ki mais en général ñoom seeni i mbir guddi la. lu tax guddi bu ñëpp parce que guddi xam nga guddi moom dafa lëndëm ci la ñuy mën a def yu bari. macha allah guddi gi euh, dëmm yi ci la ñuy mën a fri xam nga bëccëg bi. Mhm. dañ leen di gis dañ euh, ñi dañ leen di gis. aussi mhm. euh, guddi gi la ñuy mën a free mën a def lu ñu bëgg def yëpp macha allah. Mhm. boo xoolee guddi gi sax parfois dañuy gis benn affaire jékki-jékki si asamaan bi def fiw tàkk. boobu day fekk ñuy def seen ginnaaw kër yi bu ñuy def seen ginnaaw kër yi da ngay jékki-jékki benn affaire mel ni fii si jékki-jékki euh, ne fiw rek. mel ni lu explosé defe naa ne loolu booy xool asamaan bi da nga koy fekk ñuy def seen ginnaaw kër yi macha allah alors ñu gis ñu bëri dañuy dem ci hôpitaux yi di faju lu mel ni jabet ak tension. waaw ah. mais su ñu demee médecin yi du ñu gis dara am na ñu bëree bëri ñoo xam ne nee dëmm yi la. waaw macha allah am na ay feebar yi nga xamante lu mel ni jabet wala tension. Mm. wala cancer. Mm. fe yenn feebar yi nga xamante ne dëmm yi ñoom mun nañ ko teg nit ñi wala jinne yi waaye tamit am na yi nga xamante ne naturel feebar bi la. Mm. parce que am nga ñoom ci biir feebar la ñuy làqatoo ñoom dañuy làqatu ci feebar dañuy fekk benn feebar mm. ñu jël feebar boobu noonu ñoom ñoom maanaam ñu créé waat ko ñoom mm, gën ko garaawal gën ko garaawal maanaam ñoom ci feebar lañuy jël maanaam dañuy fekk feebar bu bu fi nekk ba mm, pare mm-hmm. léegi bu ñu toppee nit ki aussi dañ lay tegal feebar boobu yow soit mun nañ la roof diabète wala ñu roof la tension wala ñu roof la euh, cancer wala ñu ñu roof la yeneen yeneen yeneen feebar pour bu ko defee bu nit ñi xoolee ñu ne ah kii kat dafa am diabète wala dafa am tension fekk ñoom ñoo lay roof loolu comprendre nga waaye feebar bi dafiy ne ñoom ñu ba ñu créer feebar boobu nag ci yow mm-hmm. maanaam ñoom du ñu créer feebar bi nga xamante ne amul amul feebar boobu bu am rek bu nit ñi di wax rek ñoom feebar boobu la ñuy teg nit parce que da gis ne damay jàpp jinne mu ne wala dëmm mu ne kii maa ko wala maa wala maa ko wala maa li defe naa ne chaque jour ngeen gis loolu maanaam ñoom Euh, dañuy inspiré wu ci feebar yi fi ne ñu daal di koy teg nit ki macha allah. accident yi ñuy gis ci circulation bi rawatina semaine bi ñu génn gis nañ ay accident yu méttee métti yu am ci hors Dakar ñu bëree bari faatu nañ ci kon sëriñ bi mën nañ jàpp que ni dëmm yi mën nañ taxaw ci circulation bi ba di faat ay bakkan ci kaw tali bi. waaw accident yu bëri yi am fii du naturel muy dëmm. di jinne ñoo koy faral di def parce que boo leen xoolee wax naa ko waxati ko boo xoolee accident yi bëri nga xamante ne ñoo ngi am bu ñu toppee nit ki beneen rëbb ko mënuñu ko lekk dañ koy booleeg oto dem koj ko ci tali bi jéem a daaneel oto bi pour oto bi def soog ñoom ñu am li ñu bëgg bu nekkee nit ki nag amul gàllaaj macha allah mun nañ daaneel oto bi fa la ñuy profité lekk nit ki bu choc bi di am noonu ñoom ñooy créer choc bi euh, da ngay gis ne nit ndeysaan day def choc nga gis mu daanu tali bi deret bi ngaan fekk na ñoom jël nañ li ñu war a jël dem nañ seen yoon hmm. kon nag accident yi bëri loolu la moo tax di ut musluwaay di ut protection li lay aar tamit dafa am solo parce que ñun ak ñoom ñoo dëkk boo aarul sa bopp rek mun nañ la fexeel mun nañ la munal tamit moo tax dëmm lu bon la dëmm lu doy waar la hmm. li nga xamante ne macha allah ñoom xamuñu weeru koor xamuñu euh, dañuy julli dañuy woor dañuy hmm. dañuy def lépp dañuy dem màkka waaye seen dëmm moom dañu koy doxalee ñoom nuñ ko neex nu leen neexee ci loolu di aar sax gis nañ ni nit ñi dañuy jóge ba Allemagne dañuy jógee ba Amérique. Mhm. jubal si mhm. clinique bu fële ci Cambérène. Mhm. xam naa ni euh, suñu mbokku internet yi suñu mbokku téléspectateurs yi euh, ñi ngi ànd ak yéen ba léegi ci émission li ci jinne thème bi tey nekk dëmm ma di ci ànd ak euh, Saliou Samba. ñu jàkkaarloog le xalif général le roi médecine traditionnelle du moom the king of the kon ngeen teg seen loxo ñu dem publicité daal di ñëwaat. ah mbokki waa Sénégal mbokki waa diaspora mbir xewatina fan la xewee ci kër ceex na mu Moule Sow muy ab jaaro boo xam ni sëriñ bi moo ko génneel àdduna génneel ko monde entier muy ab bague magique boo xam ni képp ku ko takk dangay ngay ubbeeku da ngay am wërsëg da ngay am xaalis bépp musiba bu mu woon nar a ñëw sa kaw jaaro bi dalay aar bépp jafe-jafe boo nekk jaaro bi da koy fanq bépp liggéey boo nette nekk ci ay jafejafe jafe jaaro bi da lay dimbale liggéey boobu daal di saafarawu képp koo xam ni am nga jafe-jafe jëm ci wàllum wér yaram ak jafejafe jafe bu mu mën a doon tant que jaaro bi mi ngi nekk ci sa loxo jaaro bi da lay aar ci lu baree baree baree bare kon suñu mbokk yi jaaro bi fan nga ko mën a amee kër xalif général di Alaaji Ceerno Moule Sow jaaro bi nag pour nga am ko sur commande la boo ko commandé ñu def ci sa tur def ci sa turu yaay kon jaaro bi affaire de jinne la ah suñu mbokk yi xam ngeen ni nag pouvoir ku ko bëgg am ci kaw suuf jinne yi ñoo yor pouvoir te ku wax xalif général tudd jaaro bi ñu ne affaire de jinne la mbokk yi fan la ci kër Alaaji Ceerno Moule Sow mbokk yi ku bëgg jaaro bi nan ngay def ba am ko da ngay oote ci numéro bii di 78 580 46 46 580 46 46 ci xër xalif général di alaaji mu Moule Sow Chers talibés, chers fans de Cheikh Moulay Sow, voici une très bonne nouvelle. De quoi s'agit-il? Il, Il s'agit d'une bague magique, une bague magique qui est amenée par le khalife général des djinns, Cheikh qui ne cesse d'impressionner les Sénégalais. Donc une bague magique qui vous permettra d'avoir de l'argent. Dès que vous avez des problèmes d'argent, vous avez des problèmes de boulot, si vous avez euh, cette bague magique, vous serez tiré d'affaire. Si vous voulez l'avoir, vous pouvez nous appeler sur le 78 580 46 46. 78 580 46 46. Venez vite, le stock est limité. alors ginnaaw bi ñu demee publicité nag euh, ñu dellusiwaat ak seen émission li ci Guinée demaloon nañ leen léegi publicité ngeen gis euh, ñu woneen leen. bague magique yi muy jaaro yi nga xam ni la xalif général mm-hmm. moo ko génne mm-hmm. nga xam ni fi mu ne nii ñu baree bari ci àdduna bi ñu ngi koy commandé mm-hmm. euh, mu nekk li nga xam ni képp ku ko yor muy bague magique bi di jaaro bi euh, dina la musal ci lu baree bari ci ginne ci rab ci jafe-jafe ci wàllum liggéey euh, ci feebar ci dëmm ci lu mu mën a doon moo tax sëriñ bi génne bague magique yi nga xam ne nit ñi ñu ngi koy xëccoo saa sune gis ngeen nag saa su rek ñu am mbégte di leen afficher numéro yi ci suuf képp ku ko soxla mën nga woote ci numéro yi boo ko wootee dañ la wax nan ngay def ba am ci loolu xam naa ni ci jeexatalu émission bi sëriñ bi dina ci gën a delsi nu mu gën a yaatoo kon ba léegi ñu ngi ànd ak yéen sur la TMS bi ak le xalif général l'empereur le bourreau des dëmm le xalif des xalif le roi médecine traditionnelle the king of di alaaji Thierno Moule Sow nga xam ni kenn dootu ko présenté monde entier kon Saliou mm-hmm. ma delloo la kàddu merci beaucoup Moustapha Fall donc juste rappeler aux chers internautes et donc téléspectateurs que vous nu suivez toujours dans votre émission préférée li ci jinne et nous sommes avec le khalife général des jinne le roi de la médecine traditionnelle the king of all the kings xanaa di laaj euh, khalife général des jën rek parce que dañuy dégg faral muy faral di wax ay problème maanaam lu mel ne volcan joni joni lu mel ne vite fait ñoom lan lañ mën ci dëmm exactement nan la ñuy protéger nit ci dëmm. waaw macha allah jërëjëf. di kontaan bu baax a baax. ci mm-hmm. seen question bi. Mm-hmm. jaaro yi gis nga am na solo trop. Mm-hmm. jaaro yi yokkute la ubbeeku la. daf lay aar daf lay musal day indi koom-koom tamit te àdduna bi loolu lañ soxla koom-koom. bu ànd ak jàmm n'est-ce waaw euh, xam nga ñoom dëmm dañu am seen cummukaay ak jinne yi. ñoom dañu am seen i xàmb. dañu am ñoom tamit seen i xàmb. comme ni ngay gisee gars yor xàmb yor ay tuur ñoom seen bopp dañu yor ay xàmb yor ay tuur bu ñuy jógal nit aussi foofu lañ lay fexeel fa lañ lay préparer du ñu tëb rek dugg nit déedéet muy dëmm muy jinne déedéet du ñu tëb rek dugg nit déedéet dañuy préparer wu ñoom it seen mbir ba nga xamante ni saa yu ñu jógalee nit ki dañ koy mën a jàpp attaqué ko mun ko duma mun ko daaneel léegi nag euh, ñun tamit ñu crée euh, poudre mooy cuuraay bi nga xamante ne mooy volcan joni joni volcan nag macha allahu fu mu leen fekk daf leen di daf leen di maanaam day da leen di perteloo seen mémoire maanaam da leen di perteloo seen mémoire fu mu leen fekk rek du ñu xamati ci ñoom lu ñu nekk defe naa ne bu nekkee ne nit kaa ngi ànd ak xelam dina mën a def lu mu mën a def mais cuuraay bi fu mu la fekk muy dëm muy jinne sa mémoire da nga koy perte yow jinne bi ou bien yow dëmm bi maanaam doo ànd teg sa sago waaw ba pare daf lay sonal fàtt la aussi dugg say poumon yi moom dëmm bi moom jinne bi maanaam tëj courant bi maanaam du du nekkati moo tax ñoom ñemewuñu ñemewuñu samay garab hmm. parce que dama xam ñoom seen i seen i pexe ma créer produit yi nga xamante ne ñoom duñ ko mun a attan duñu mun a àttan degré bi hmm. moo tax gis nga cuuraay bi fu ñu ko taar bu fa dëmm nekkee day commencer prier xalangu hmm. di fàtt bakkan bi su fa jinne nekkee aussi noonu lay def moo tax aussi te daf leen di génne ci yaramu nit bu gaaw duñ ko fa xaar maanaam fépp fu ñu ko gi seen muy ñëw rek dañuy dañuy abale waaw moo tax kon cuuraay bi am solo mm-hmm. euh, euh, kii liquide vite bi tamit gis ngeen ko macha allahu daf leen di lakk tey mm-hmm. maanaam da leen di lakk maanaam dafa mel ni nga tàngal betax ba mu tàng mm-hmm. tàngal ko ba mu tàng jër nga sotti ko gis nga lu muy def bu fekkee jinne ci ci yaramu nit ki waxuma la yax yi sax da koy lakk day murñe la yax yi noonu lay def dëmm yi noonu lay def jinne yi dafa leen di lakk parce que da ngay gis ne dëmm yi ak jinne yi bu ñu leen sottee vite fait rek da gis ne ñu ne yaa ngi may lakk kon nag macha allah produit yooyu dañu ko liggéey spécial ci baatin ci xam-xam bi nga xamante ne euh, macha allah moo raw kano xam nga kano. Mhm. moo raw kano. xam nga kano ak ak fetal du benn. Mhm. ban moo ëpp doolee du kano. kano bien sûr waaw kano maanaam dooleem moo ëpp kano bosoka moo ëpp bol comme bomb la. Mhm. maanaam boo ko doolee day exploser foofu. maanaam garab yi noonu la mel ci dëmm yi ak jinne yi maanaam fu mu leen fekk rek day exploser seen kaw eh, da leen di daleen di humilier mhm. macha allah boo ko amee moom ñoom duñ la jege maanaam bu ñu xamee ne mbir maa ngi fii sax vite fait bi wala volcan bi bu ñu xamee ne moo ngi fi mhm. eh, lu mel ni trois kilomètres mhm. fa la ñuy daggee dem duñ ñu traîner fii parce que xam nañ bu ñu fi duggee musiba lay doon ci ñoom day mel ni bomb ci ñoom maanaam day exploser maanaam day exploser da leen di da di yàq carrément. da leen di yàq bien mm-hmm. sûr euh, mm-hmm. suñu mbokk ñu nekk bitim réew euh, bëgg lu mel ni cuuraay volcan jooni jooni wala vite fait nan lañ mën a def pour am ci mbir mi parce que ñu baari dañuy woote à chaque fois bëgg mbir mi donte sax nit ñi euh, ñu ngi. commandé ba léegi mais nan lañ mën a def pour mën a am ci mbir mi. macha allah bu ñu wootee rek dinañ leen teg ci yoon ñu ñaa ngi woote saa su ne di def ay commande mm-hmm. parfois ñu ngi leen di envoyé ay DHL. Mm-hmm. GP yaa ngi dem. Mm-hmm. suñu buggee suñu wootee incha allah ñu yónnee leen ko. commande yi ñoo ngi am bu baax a baax ñi ñaa ngi koy jënd si. bu baax am na commande sax yu war a dem. fan demee suba. incha allah ñi ñaa ngi saa su du ma toog deux jours. te yónneente wuñu yónne garab yi. macha parce que ñi ñaa ngi ci gis seen njariñ ndax dafa nekk garab yi nga xamante lay dimbali mm-hmm. du garabu pharmacie mm-hmm. du garabu doctor mm-hmm. médecine traditionnelle la waaye daf lay jàppale parce que am na ñu bëri ñoo ngi dund Europe ñoo ngi dundu euh, bitim réew te xam ngeen ne médecine bi médecine moderne maanaam macha allah foofu la amee doole waaye dañuy faju ba sol duñ gis dara dëgg la dañ médecin yi sax dañu naan ah, ñun xamuñu sa feebar bi dara mais dañuy jaaxle woote ñu yónnee leen garab dañ koy laal rek am jàmm dégg jàmm kon xam ngeen ne garab yi yàlla da ci def barke aussi xam-xam bi ma ci investir dafa am doole macha allah moo tax njëriñ kese la njëriñ la mm-hmm. nan la lay def euh, buñ lay naan euh, sëriñ bi am na sëriñ yu bëree bari dañuy ñëw sa kër laxatu ñëw jënd ci vite fait bi wala ci volcan bi loolu boo ko yëgee lu mu lay def yow waaw loolu sant yàlla la rek mm-hmm. loolu sax baax na mm-hmm. Euh, gannaaw day jëriñe bu ñu defee loolu sax dinañ mën a dimbali ñeneen ñi parce que bu yaakaar dafa fort bu nit ñi yaakaaree ci ñoom vraiment di dem ci ñoom mhm. ñu mënee ñëw sax di jënd mhm. euh, di leen dimbali tamit ba ñoon ji gis seen bopp tamit mhm. loolu sax alhamdulilah njëriñ la parce que yaakaar dafa fort nit ki yaakaar la tamit sonn jox la xaalisam tamit vraiment satisfaire ko loolu tamit dafa metti gis nga ñun euh, dañuy dem ba jeex tàkk si faj bi gis nga bu ñu ja bu bu nekkee ci liggéey bi dañuy dem ba jeex dara suñu jàkkaarloog jinne yi aussi duñ leen may dara macha allah nit ki bu la yaakaaree rek war nga mën a góorgóorlu ba satisfaire ko mu mun a am jàmm loolu tamit lu baax la bu ñu munee ñëw di jënd parce que saa su ne da ngay gis foofu noonu dañuy yabal ay nit ñu ñëw soo waxee kan moo la yónni mu ne kilifa la nanga man amul problème nañ ko jox macha allah bu ñu ko joxee bu demee joxe ko moom mun a nekk ci turam la joxe. Euh, mu am ci kee am ci njëriñ moom it mu am ci succès loolu tamit lu baax la bonul macha allah alors gis nañ ne dëmm euh, moom lu muy gën a jàpp mooy ki ko jege maanaam mbokkam lu tax moom du dem jàpp keneen koo xam ne bokkut ak moom dara maanaam koo xam ne xamu ko mu dem jàpp ko wala moom ki muy jàpp mu nekk mbokkam ndax daf koy bëgg a fayee bor wala dara. waaw li nga wax dëgg la xam nga dëmm yi du ñu hmm. tëb rek ñu dugg si nit ndax duñ la xam. Hmm. mais dëmm dana jàpp tamit ku nekkul mbokkam. ndax nag hmm. euh, sa mbokk bu demee taylal la ci dëmm yi. may na dëmm yi bunt. parce que dëmm mënul a gis nii rek dugg ci yow. day am mais du bari kooku dëmm yu mag yi ñooy faral loolu dajeeg yow rek jéem la xool la xam na ne am nañ occasion ñu daal di dugg ci yow loolu day faral di am mais bariwul mais euh, sa mbokk mën na la bëgg lekk du la mënal dara mu dem tayla la ci dëmm yi ne kii sama mbokk la dama bëgg ngeen jàppale ma ñu lekk ko boo ko defee ñoom dañuy am doole dañuy mën dañu lay mën a songu mm. boo xoolee noonu lay demee ñu bëri ñi nga xamante ne fii Euh, ñoo ngi leen di lekk en général euh, du seen mbokk kese la dañ leen di tayle ñeneen comme boo fayee bor nga lekk maanaam nga nga lebu nga lekk léegi nga war a indi sa sa mbokk munoo ko lekk yow kese da ngay woo dëmm yi complot nga jox leen ay pexe jox leen ay plan ñu xool nan lañ ko utiliser nan lañ koy fexelee pour mun ko lekk kon dëmm tamit noonu lay demee mais nag yooyu yëpp boo amee li ma la wax ni mooy euh, nga ut volcan bi ut vite bi ah da mucc ci ñoom mm-hmm. pexe bu ñu laal rek da nga koy yàq ndax ñoom dañuy am ay dañuy am ay ay xàmb dañuy am ay tuur yi nga xamante ne fa la ñuy toog di la mën di gis la di la gis fa la ñuy toog di def yi ñuy def pour mun la jàpp ndax ñoom dañu lay njabar ba pare doog la attaqué ñoom dëmm yi dañ lay njabar ba pare doog la attaqué mhm. mhm. alors gis nañ ay des fois ci faj bi ñu gis jinne boo xam ne dafa ànd ak dëmm maanaam mu nekk jinne en même temps nekk dëmm loolu naka la mun a nekkee mooy li ma doon wax sànk rek am na jinne dëmm am na nit dëmm jinne dëmm mooy lan mooy jinne bi nga xamante ne moom jinne la ba pare waaye dafa làmboo xam-xamu dëmm dafa yor xam-xamu dëmm maanaam day lekkaate du jinne yëpp ñooy dëmm am na jinne yi nga xamante ne macha allah ay jinne lañu du ñu ay dëmm ay noobul lañu euh, jinne yi siluse lañu euh, ñooñu du lekk nit soxlawuñu yàpp nit maanaam am na ñi nga xamante ne ay jullit lañu tamit ay xaafisul quran lañu am na ñi nga xamante ne ay jullit lañu waaye tamit ay naafeq lañu am na tamit ñi nga xamante ne ay jinne lañu waaye ay ay duñu ay jullit maanaam ay yéefar lañu ñii tamit ay chrétien lañu macha allahu ñii ay musulman lañu waaye euh, waaye dëmm. Mhm. Euh, jinne dëmm bi xam-xam la moom day nekk jinne ba pare yor xam-xamu dëmm. Mhm. loolu xam-xamu caay-caay lay doon ci moom xam-xamu kàccoor lay doon ci moom xëy na moom mhm. xëy na moom mun na doon ci pàppam ci wàllu dëmm bi wala ci yaayam wala ci mbokkam wala mu jàng ko. loolu tamit day am jinne dëmm day am te loolu mooy gën a garaaw sax jinne day naan deretu nit xam na waaw day naan deretu nit bu baax deretu nit lay dunde defe naa ne xale bu jigéen boobu barki dem boo ñaa ngeen gis kër ga jinne bi daf ko indisposé loo chaque minute pour mm. mun a naan deretam nee na su xale bu jigéen bi di indisposé moom day kontaan defe naa ne vidéo bi yéen a ngi koy seetaan mm-hmm. kon ñoom dañoo doy waar deretu la ñuy dunde ñoom seen deretu nit ñoom deretu nit la ñuy dundee. xam nga ne loolu lu doy waar la. ñi mhm. ñi di dundee yàpp xar yàpp nag yàpp béy ginaar yow ngay dundee deretu nit. lu garaaw la. Mhm. léegi nag ñooñu ñen ñoo mën ci ñoom dara mu ku mel ni mu Moule Sow yàlla mi nga xamante ne jox na leen xam-xam. Mhm. ndax sëriñ yi bëri dañuy wax dañuy faj ay dëmm ay jinne. déedéet boo demee garabu ndoxum siiti lañ lay jox wala garab ndoxu émori. ndax tey bu ñu la joxee garabu dëmm dëkk bu ñu yëngalee dëmm bi dëmm bi da leen di attaqué te bu leen attaqué daleen leen di faat hmm. te ngay gis ne ku ñëw ci man ne ma dem naa faju si ay nit dem naa fukki at nangam nangam dara sëriñ boo dem mu xam ne ne dëmm moo la jàpp tuuti na sëriñ bi nga xamante ne day jël risque faj la mhm. ndax sëriñ bi bu attaqué pour faj la dëmm yi dañ koy tongal te buñ ko tongalee bu amul xam-xam dañ koy faat mhm. moo tax du sëriñ yëpp ñoo ñemee faj dëmm tamit du sëriñ yëpp ñoo ñemee wax ci dëmm sëriñ boo gis muy wax wax lu dëmm jamono ji day toppaloo Thierno Moule mhm. mais amuñu fit di wax ci dëmm te fii kenn daaw fi wax dëmm man rek maa yor daan wax dëmm ñoom ay nitu guddi rek la ñuy wax sëriñ boo fi gis jéem a dëggal boppam di wax waxu dëmm xamal ne dëgguwul gëmu ko amul faj faj dëmm ndax dëmm boo amul xam-xam boo leen fajee dañ lay duma dañ lay coob mhm. dañ lay sonal dañ lay éliminer mhm. macha allah macha allah Moustapha euh, ba léegi ñu ngi am mbégte i ànd ak le xalif général mu nekk waxtaan bu am solo di mhm. émission li ci Guinée ñu ànd ak yéen nag xam ngeen ci télévision bi ñu wax laa TMS TV di télé bi nga xam ni moo feeñal lépp lu nëbbu lamboo ko njëriñ euh, ba léegi ñu ngi ci seen thème euh, muy dëmm waaye xam nga ni wax dëmm wax Guinée xam nga ni le xalifa général ku jàkkaarloo moom aussi boo boo loo sujet boo mën a indi il faut nga wax Guinée gis nañ fan yi Guinée bu jógee ba France ñëw ñu di ko mu nekk Guinée bu mag a mag nekk ñu tudd Guinée Christine ñu gis ni ñaar fukki at ak juróom benn Guinée bi mu ngi ci moom ñu gis keroog pour mu génn ci moom euh, xawoon na maanaam difficile te sëriñ bi dañuy gis fan yële passé am na fa maire bu fa ñëw boo xam ne Guinée bi mi ngi ci moom lu ma juróom fukki at waaye dafa ñëw rek facilement nga génne ko loolu nan nga ñu ko mën a expliquer. waaw macha allah Moustapha kontaan nañ bu baax ci question bi. xam nga jinne yi euh, dañu bëri waaye dañu ute. xam nga am na jinne yi nga xamante ne dañuy dañuy yàgg ci nit ba pare dëkk fa. tabax fa ay immeuble def fa lépp ba nga xamante ne macha allahu. bu ñu naree génn foofu noonu maanaam baatin ngay def pour ñu génn defe naa ne buldakum gis ngeen ko Serigne Mbacke Gueye Iran buldakum mooy jinne bi nga xamante ne moo nekkoon ci laal la mhm. defe naa ne jinne bi ponkal la géant la mhm. defe naa ne longooram macha allah romb na kër gi di dem mhm. mais gis ngeen ba mu nekkee ci laal la euh, ba ma ko tuubalee bëgg ko génne saa yu ne day bëgg a génne mais danaan sëriñ bi damaa kale ndax ni ma toll moo tax mu naan damaa kale mais gis ngeen ma def sama xam-xam def sama baatin. ba génne ko euh, ba génne ko ba mu mees ba mu mën a génn mu daal di génn. macha allah ma daal di koy tuubal mu nekk sama kër di ma liggéeyal mooy ab buldakum Serigne Mbacke Gueye. Hmm. mooy buldakum mooy jinne bi nga xamante ne moo nekkoon voyu Mbacke. Hmm. nekk bandi Mbacke di tux di agressé. di def yëfu banditisme Mbacke defe naa ne. Hmm. Euh, jinne boobu gis ngeen tamit beneen jinne Xurayshi. mooy deuxième ambassade Iblis. moom laa génne woon ci xawaa. maanaam xale bu jigéen bu jógee woon Fuuta Hawa macha allah jinne boobu tamit dafa kale woon ci Hawa parce que day am jinne yi nga xamante ne macha allah dañuy yàgg ci nit dem ba adhéré ci nit ki maanaam pour nga ñëw rek génne leen euh, parfois day dëgër ñeneen ñi da ngay ñëw rek fat fat mu génn ñeneen yi aussi dañuy kale mais ci biir kale boobu nag xam-xam laay def ci suuf pour mun leen retaaye mun leen retaaye retaaye ba ñu mees pour ñu mën a génn ci nit ki gis nga xawaa tamit noonu laa def ci moom euh, mooy Xurayshi moom moom mooy deuxième ambassade Iblis moom it dafa kale woon ci xawaa moom laa noonu laa def ba génnee ko gis ngeen tawa chrétien bi awa mhm. awa mooy ki dëkk Mbuur mooy intellectuel bi ku am ku am bac plus cinq bi xaw ma mhm. Mhm. moom tamit gis ngeen amoon na benn jinne bi nga xamante ne dafa bloqué woon ci yaramam yàggul lool jinne bi jinne bi day bëgg a génn waaye du mën a génn ndax dafa kale dafa mel ni dafa dañ ko crise ci yaram bi maanaam dafa mel ni moom dafa crise ci yaram bi mhm. mais gis ngeen aussi foofu tamit xam-xam mooy moom mooy dox foofu noonu moom it xam-xam laa def xam-xam def ba mu génn macha allah defe naa ne gis ngeen loolu noonu gis ngeen aussi euh, ki jógee njigaloon soomoon mhm. gis nga moom tamit dafa ñëw fat fat laa génne jinne yi euh, waaw macha allah Christine tamit gis nga jour mu ñëwee kër ga gis nga dafa ñëw nangu apprécier euh, ma tuubal ko mu kale mais ci biir kale boobu maa ngi def baatin pour mu génn parce que xam-xam la parce que yenn jinne yi dañuy ñëw rek nga génne leen mu gaaw ñenn ñi dañuy kale mais bu ñu kalee tamit foofu xam-xam nga fay def soo defee xam-xam rek day daal di génn parce que xam nga calculer li am ci nit ñaar fukki at ak juróom benn nga ñëw tay tay ne day génn tay tay amul benn sëriñ bu ko fi mos a def amul kenn ku dul man xam nga ne loolu sax xam-xam la man parfois damay xam ne ne lii sax du war a mun a génn léegi léegi mais damay forcer ne day génn léegi léegi léegi. loolu man dama koy def. damay xam ne ne kii warul sax mun a génn léegi tay tay tay mais damay insister ak sama xam ma ma def ko rek yàlla dimbale moom jinne bi daal di génn. loolu baatin la. parce que li may def nii yombul de maanaam insister dangay génn tay tay dangay génn force. loolu amul kenn ku ko mos a def euh, ba adduna bi sosoo ba tey ku man parce que parfois euh, xam-xam bi da ngay tenter dara rek. askilere yàlla dimbali la ci nga def mooy lépp lu ma xalaat rek dama koy mën a def maanaam lépp lu nekk sama xel dama koy travail ci sama baatin moo tax li ma def nii amul fenn doo ko gis fenn ji ji topp nit ay ataat nga ñëw tay tay sëriñ bi ne tay tay day génn force jinne bi ne du génn ma ne day génn nekk ak jinne bi nekk ak jinne bi nekk ak jinne bi ba daal di koy génnee dama ciy pare ma ne alhamdulilah rabbil alamin yàlla mm-hmm. moo mën a maye. Mm-hmm. parce que euh, du woon forcé mu génn léegi léegi léegi kon loolu baatin la. Euh, maanaam euh, lu la sa doole mayul lu ma lu la sa doole mayul ak sa xam-xam. Mm-hmm. xaw ma nu koy waxee ci olof macha allah. maanaam man lu lu lu ma. lu la sa xam-xam mayul. waaw sa doole du la ko may. waaw man noonu laay doxee man sama xam-xam dafa mel ni. Euh, ki nga xamante ne da ngay attaqué. duma ko dóor ko daan ko am victoire man noonu man sama xam-xam noonu laay faral di demee. Mm-hmm. maanaam damay je attaque je cogne je gagne. Mm-hmm. man sama xam noonu la. Mm-hmm. je attaque je cogne je man noonu la. bugguma bugguma défaite quoi. comprendre nga moo tax jinne bu ma la nee jaaraan boo nee xaas dama lay bëgg def kata bépp. man noonu laay doxee sama baatit te loolu noonu wax dëgg yàlla. Euh, man kese maa ko fi def te loolu mën na ñàkk sax parce que. lu am ay ay ata at mm-hmm. nga bëgg ko génnee tey tey mm-hmm. ah loolu jàmbaar dëgg moo mun loolu noonu mm-hmm. est-ce que nekkul xam-xam boobu est-ce que nekkul loolu sax moo tax yenn yenn sëriñ ci di jaloux di mer euh, li ñuy wax taal bu yàlla taal sànni ci mattu moo gën fay ko est-ce que nekkul loolu moo tax yenn sëriñ si aussi parfois ñuy jaloux di di di di mer euh, ci xam-xam bi la yàlla suñu borom may waaw mais xam nga ku mer ku mer maanaam euh, ku mer bokkoo parce que Euh, ñun ñëpp yàlla dañoo bind kenn ku ne yàlla dafa am lu mu ko may te mm-hmm. yemalewul te yemalewul mm-hmm. man du ma mere kenn mm-hmm. man damay wane sama xam-xam man sama liggéey boo ma ci fekkee da ngay xam ne kii gaynde la kii segg la tigre la gaynde tigre parce que man sama sama titre loolu la tigre ak gaynde mm-hmm. macha allah defe naa ne mm-hmm. man sama liggéey da nga xam ne sëriñ bi gaynde la boo ma fekkee sama kër nag mm-hmm. damay nekk nit ku calme nit ku oyof waaye bu ma nekkee sama biir maanaam maanaam bu ma rëbbee du ma sooy li ñu wax bu maanaam bu ma demee rëbbi du ma sooy maanaam bu ma nekkee ci liggéey bi li ma bëgg a am ci jinne ak dëmm yi danaa leen yeew danaa leen duma danaa leen takk ba ñu dëgër tuubal leen dugal leen ci l'islam mhm. man loolu laay doxee maanaam stratégie boobu laa yor expérience boobu laa yor mhm. je attaque je cogne je attaque je gagne mhm. man noonu laay fa maanaam sama sama stratégie ci faj noonu la sama stratégie ci baatin noonu la macha allah je attaque je cogne je gagne noonu laay doxee moo tax gis nga jinne bu ma jàkkaarloo day metti ci yow parfois gis nga damay summeeku jàkkaarloo jinne yi te moo ne yor naa ay sécurité munoon naa ne nañ ma lemal mais man maay attaqué songu ak jinne yi ci ci zaahir ci maak ñoom face à face loolu xam-xam la te xam-xam aussi boo ko wonee maanaam boo ko yoree dëgg da nga kaa war a wone te da ngaa war a euh, macha allah wone sa xam-xam Christine gis nga ko. nee na li mu gis ci man gis ko fenn. moom nag euh, comme dafa ñëw tey mu mu mu dem suba waaye day dellu siwaat macha allah kon xam-xam day leer. day dëggu maanaam boo nekkee borom xam-xam dëgg. da ngaa war a peese sa xam-xam. nga peese sa sa kattan. loolu day am solo. loolu moo waral ma jóge fii dem euh, géej woote woote géej def luuma. mooy luuma bi nga xam ne adduna yëpp ñu ngi koy coow. ñëpp mhm. daje fa ñëw. Mhm. ma dem ñaari yoon ma jóge fii aussi dem Kaolack. xam nga ne Kaolack macha allah ay borom xam-xam ñoo fa nekk. Mhm. xam ngeen ne Kaolack macha allah jinne yi nañ fa. ba léegi yaa ngi bàyyi xel xam ngeen bëri nañ fa. xam ngeen ne macha allah ay borom xam ñoo fa nekk ma dem ba Kaolack dem ci ci. imaam imaam imaam imaam euh, imaam imaam Cheikh. macha allah dem mu dalal ma. dem ci xalifa bi Medina Baye ñoom ñëpp ñu dalal ma ñu tadagal ma ñoom euh, yar ak teggin Cheikh baay mm. Cheikh Baye. ma dem ba stade Kaolack. Mm. ndeysaan euh, woote. Mm. xam nga stade boo wootee dëmm day ñëw jinne day ñëw rab day ñëw. Mm-hmm. lépp day ñëw ñëpp ñëw ndeysaan. ma ànd ak sama gàngoor ànd ak sama équipe. vraiment ñu def euh, gars yi def gars yi ma. macha allah ñu dem ba Kaolack ma woote. gars yi ci kër yi lañ daan daanoo ci biir kër yi mm-hmm. ñu leen di yenu di leen indi gars yi di daanoo ci turbine bi ñu leen di indi mm-hmm. loolu amul kenn ko fi mos a def amul benn sëriñ bu ko fi mën a def mm-hmm. xam nga sëriñ bu demee ba woote estaat kooku xam nga ne ndaanaan la ci wàllu faj jinne maanaam ñëw leen ci estaat bi képp ku yor jinne képp ku yor rab ñëw leen ma génnee jinne yi ci gratuit xam nga ne ku wóolu boppam ku wóolu doo ku wóolu boppam dëgg ku wóolu boppam dëgg mooy mën a def lool mm. te lool tax bëgg naa ñu def ko du yàgg bu ñu yàlla dimbalee ñu woote fi benn esaat mm. ñu xool benn esaat bi nga xamante ne macha allah yaatu na rëy na ñu def consultation gratuite mm. képp ku feebar ku yor jinne mm. na ñëw mm. ku yor rab na ñëw ku yor dëmm na ñëw bu soobee yàlla ma faj ñëpp ci ci ci ci ci addiyee yonent bi salaa salaam ci addiyee mu yontu yàlla Muhammad ci addiyee suñu borom xam nga loolu tamit xam-xam noonu la parfois da nga war a di poser sa xam-xam di di yooyu am solo maanaam loolu la parfois da war di di tester sa xam-xam déjà dem nañ estaat wane nañ fa li ñu fa wane ñëpp gis nañ ko macha allah kon nag vraiment ne loolu la rek euh, képp ku zalu bokkoo te nit ñi dofuñu sénégalais doful toog di wax rek ci rajo yi wala ci télé yi te doo wane preuve loolu amul sens mbir mi nañu wanante suñu xam-xam maanaam sa xam-xam na nga ko wane ci li ngay def ci liggéey bi ngay def na nga ci wane baatin na nga ci wane kiraama na nga ci wane pouvoir loolu moo moo ëpp sens hmm, ñëpp xam Moustapha jóge nañ ci dëmm ñëw ci jinne léegi dama bëgg a laaj xalif général de jinne parce que des fois dañuy jàpp benn nit di faju mm. mu dëmm bi wax euh, wala jinne bi wax ne dëmm bi moo ma booleeg moom mm. maanaam association entre dëmm ak jinne mm-hmm. dëmm dina jàpp nit boole ko beneen jinne pour mu sonal ko mm. loolu naka la mun nekke waaw parce que dëmm bi su jàppee nit ki amul pexe ci moom mënalu ko dara jaar na fu ne mm-hmm. mënalu ko dara parce que ñenn ñi yàlla mun na leen dimbali mun nga am ay ñaan wala nga am ñaanu waajur wala nga am ay protection bu jaaree gauche jaar droit mënalu la dara day jéem a dem gisante ak jinne kon ñoom dañuy jàppalante seen biir ah day dem gisante ak jinne def association ñëw ne la man kat am na ku ma topp dëmm bi ne am na ku mu topp bëgg na ko lekk léegi dimbali ma ci naa la fayee nangam naa la fayee poot ñeen ñi sax seen bopp la ñuy fayee defe naa ne dégg ngeen ko hmm. dëmm bu fayee boppam gis ngeen ko dégg ngeen ko. Mhm. su ko defee nag jinne bi nekk wala kaana nangu loolu dem jàppale ko. Mhm. su ko defee euh, bu demee jàppale ko. Mhm. ah mun na am sens. waaye bu ko yàlla dimbalee mu ñëw ci Thierno Moule Sow. sens boobu yëpp yàqu ma daal di jàpp jinne bi duma ko jàpp dëmm bi duma ko loolu defe naa ne am na fi amati fi. gis nañ fi ay ay dëmm yu associé ak ay jinne. su ko defee ñoom bu ñu ñëwee ba ci man. macha allah ma daal di jàpp dëmm bi daal jàpp jinne bi bu ma jàppee dëmm bi dama koy duma. Hmm. Euh, di wekki yi dootu lekkati ma fulkaan ko mu dem jinne bi ma tuubal ko nekk ak moom ndax man ay jinne rek laay nekkal dëmm moom dama lay tuubal rek dindi sa lekkukaay ba doo mën a lekkati ma bàyyi la nga dem sa yoon. Hmm. Hmm. macha allah ci biir sa waxtaan dégg nañ nga tudd ba tudd stade. waaw bu mel ni Stade Lamine Gueye bu Kaolack stade na ku ko tudd tudd làmb te xam ngeen ni làmb dafa tëjoon lu mot at ndax wàllum corona bi. waaw stade yi ubbi nañ. sëriñ bi ñuy gis su làmb amee. ñaari mbër yi bu ñu jàkkaarloo day mel ni benn mbër bi day bëreek lu mot ñeenti mbër. loolu noonu la mën a nekkee. waaw macha allah xam nga affaire làmb mbirum jinne da ciy rax xam nga jinne yenn jinne saytaane yi dañuy bëgg tout le temps yu mel noonu mm-hmm. mbirum làmb yi li si bëri affaire jinne la mm-hmm. képp ku ci ëpp gàllaaj rek ëpp ci dimbalee rek moom moo lay en général ñoom moom mooy daan lamb bi loolu la rek affaire jinne la parce que dafa am jinne yi nga xamante dañ leen di neexal ay affaire dafa leen ay sacrifice ne la bu kii di bëre rek nga dem jàppale ko nangam nangam jinne yi di def loolu parce que jinne yi dañu bëri ci àdduna ba soppaliku nekk ñaar ba ba ñeent dañu bëri ah, même euh, ñu si bëri nag sëriñ yooyu sax di jàppale ñi ci lamb bi dañ dul gis jinne sax du ñu xam jinne bi mm. mais dañuy def sarax rek jinne bi dem def lu muy te ñoom du ñu gis jinne bi sax sëriñ yi bëri ñu ngi liggéey ak ay jinne sax kii sarax lay def rek yëkkati affaire bi mu dem. Mhm. soit mun nga ko fe ci mbedd yeeg ci yenn kii sax ay fréquence su jinne nga dem def benn sarax rek. Euh, jinne bi dem defal la loolu waaye loolu rokku mi la mhm. macha allah loolu rokku mi la maanaam jinne bi mën na taxaw jàppale la ëllëg mu mu mu yàqal la dara loolu maanaam noonu lay demee mais ku mel ni mu Moule Sow nga xamante ne man jinne yi dama leen duma xeex ak ñoom ba am leen ba téye leen ñu nekk sama samay taalibe mhm. samay la ñu man jinne sama màcculoo nga man ba ma leen mënoon wax lu ëpp esclave jinne yi dama leen di wax loolu mhm. ndax man maa gën jinne sama dàll yii moo gën jinne macha allah su ma puseeru tànk moo gën jinne mhm. ndax boo jàng alxuraan xam nga lu yàlla wax ci jinne ak doomu aadama n'est-ce pas mhm. waaye euh, Firxawna euh, iblis ba ko yàlla waxee na na dem tuubal maam aadama na ko sujjootal dafa bañ euh, iblis mais gis nga jinne dañuy ñëw li ma sukkal di ma raamal yàlla mooy maye man li ma yàlla jox mm-hmm. dama cee fees dell li ma yor ci ay jinne xaw ma ñaata la toll xaw ma aduna man man euh, boo xoolee mm-hmm. du jinne laa yor man aduna jinne laa yor man li ma yor ci samay taalibe la duma leen bàqoo du ma leen tiitaroo mm-hmm. defal ma def bàyyil ma bàyyi nga bañ ma duma la te jinne yi sax bu ma leen defloowee dañuy def ndax am na fi ma jaar ak ñoom avant maak ñoom ñuy nekk dañoo am fu ñu jaar ba pare dañoo dama dama dama dama dama raag ak ñoom duma leen wan leen sama diisaayu loxo ñu xam ne ne kii kat macha allah moo ñu mën moo ñu ëpp doole. moo ñu mën moo ñu ëpp doole. macha allah loolu nekkuñu nag ay yambar de jinne yi lu ma leen mën ëpp leen doole loolu yàlla la mais jinne yi am na ñoo xamante ne man nii laay def sax pour ma gis leen. dañu nii dañuy ngàdday. waaye yàlla moo ma moo ñaale xam-xam ak baatin moo tax mu mën leen. waaye doonul sama kattan wala sama njàmbaar. mais yàlla moo ko roof ci man. waaye xam ngeen ne jinne nu mu kàccooree saay soo ko maîtriser ak sa loxo xam nga ne yow yàlla daf laa may mais ku yàlla mayul ku yàlla dimbaliwul du leen mën a maîtriser parce que ay kàccoor lañu hmm. waaw dëgg macha allah. Hmm. gis nañu euh, des fois boo duggsee maanaam doo laal garab doo wax dara sax mais dañuy gis benn xale bu jigéen wala xale bu góor boo xam ne jinne moo ko moo ko dugg day commencer def ay manière loolu naka la nga ñu koy expliquer. parce que man dama ànd ak leer. dafa am lu hmm. yàlla def ci man. man boo xoolee sama visage sama kanam. am na lu yàlla def ci sama jëmm bi. léegi nag jinne seytaane mm. euh, ñemewuñ ma jinne yi duñ ma ñeme ñenn ñi duñ ma ñeme xool bu buñ ma xoolee dañuy lakk mm. loolu nag macha allah yàlla la man am na lu nekk ci man mm. boo nekkee nit dëgg ku mbon ku muus ku am xam-xam boo toogee côté nga may suivre da nga xam ne ne kii du nit simple mm-hmm. waaw dee nit nga mm-hmm. nekkee nag doo nit mënoo xam loolu mm-hmm. boo nekkee nit dëgg soo ma ne jàkk danga xam ne ne kii am na lu yàlla def ci moom kii du nit simple moo tax attanuñu sama sama maanaam attanuñu sama sama leer. daf leen di lakk daf leen di humilier. loolu moo tax bu ma nee tëll ñu daal di yuuxu tàggook seen sago jaxase. te duma leen sotti dara. defe naa ne ba àdduna bi sosoo ba tey. mosoo leen gis nit bu génn jinne yi daanu amul fenn. ku dul man. yàlla nag bu la bu la mayee. da nga koy sant. di ko gërëm. macha allah defe naa ne man gis nga agence yi nekk nii. am na ay millions de jinne yi nga xamante ne ñoom ñoo leen wër taxaw di ma sécurité hmm. man fu ma dem jinne yi may topp fu ma nekk jinne dañuy nekk ak man gis nga agent sécurité yi ni ñu nekkee ni macha allah. Hmm. Euh, noonu la jinne yi nekkee seet ginnaaw ay ponkalim jinne tiim leen taxaw di ma sécurité mais nit ñi duñ leen mën a gis hmm. mais ku bon wala ku ànd ak dara euh, bu taxawee jàkk moom day gis yëpp macha allah man dañ naan sëriñ bi day jël ay agent sécurité ay nangam. Hmm. c'est normal dundu aduna laay dund maanaam aduna aduna boo ci nekk da ngay dund dundu aduna. Hmm. dundu aljanna laay dund bu la yàlla mayee teral la nga nekk buur hmm. mais yu fu buur ngay dund. loolu moo waral ngay. développé di jàppale askan ay millions di jël ay sécurité ñuy ànd ak yow di sécurité. décor la lu rafet la. c'est normal. loolu la mm-hmm. waaye man man sama bopp damay sécurité sama bopp ndax man ñi ma àndal jinne yi fu ma dem dañ may topp samay taalibe lañ mm-hmm. defe naa ne nag taalibe bu ànd ak sëriñam nan lay def mm-hmm. da koy jàppale waaw kay man sax man man macha allah man kese sama sécurité bopp laa moo tax kon yàlla bu mayee ni dara macha allah da ngay nangu soo nanguwul rek da ngay so da ngay sonn kon nag ñun li yor ci ay jinne dafa bari te yàlla defal na ma jinne bu ma oo uy ma foo mën a ne ci àdduna bi jinne bu ma dégg turam rek su ma ko woowee day ñëw mhm. te dèjà jinne yaa ngi ñëw di jóge fu ne di ñëw di jébbalu di tuub yéen a gis mhm. jinne yi gën a mag ci àdduna bi dèjà ñoo ngi sama loxo mhm. Hmm? jinne yi gën a mag ci àdduna bi dèjà egsi nañ jinne yi doon ànd ak yonte yàlla Souleymane ah jinne yi doon ànd ak yonte yàlla Muhammad macha allah gis ngeen ay ñoom Hamza. Hamza Moulay jinne bi nga xamante ne dafa daan yor benn loxoom fi fukki jaasi yor fi benn loxoom fukki jaasi ñoo ñëpp tey ñoo ngi sama sama sama sama ron ñoo ngi sama ron calculer loolu rek jinne hmm. yi daan ànd ak yonente bi tey wëlbatiku di ànd ak man ñëw jébbalu ci man kon kooku am na lu ko yàlla defal moo tax sama jëmm seytaane yi ñemewul sama jëmm hmm. euh, jinne yi bon yi ñemewuñ sama jëmm euh, Iblis ñemewul sama jëmm macha allah kon nag euh, vraiment sant yàlla bu baax a baax loolu moo tax bu ñu ma gisee rek daanu. Hmm. loolu kese la. defe naa ne ñi ñi ñi ñu bëri ñoo fay nekk wala bu ñoom bu fa nekkee du ñu yëngu. du ñu ma gis sax dañuy dégg sama bruit rek mm-hmm. ñu daal di commencé prier jaxase. macha allah mm-hmm. allah am na solo mm-hmm. euh, Saliou. Euh, ñu ngi signalé nii euh, waxtu bi jeex na waaye ñu fa jóge te. am na question boo xam ne duñ ko laaj sëriñ bi. ñu gis ci fan yi ñu génn nga def loo xam ne kenn defu ko senegal nga mën a génne lu mot fanweeri million ak ñaar. ci ay ravitaillement jébbal ko askanu Sénégal. ñëpp rafetlu ko këru diine yëpp aussi rafetlu ko ñaanal la ci. te sëriñ bi loolu nag ay koppar la euh, xam nañ ni kenn nekkul sa ginnaaw xam nañ ni yàlla ak yonent bi te xaalis dafa sax ci xol hmm. nan nga mën a génnee fanweeri million di ko jébbal jaamu askani alaaji Ceerno Moule Sow macha hmm. allah hmm. looy woote da nga koy nuroo man dama ne damay liggéeyal yàlla ak yonent bi euh, sama àdduna sama lépp yàlla la sama lépp yonent bi salaa salaam la sama lépp jaamu jaamu yàlla yi la bu koor gi ñëwee macha allah war naa mën a génne ay koppar ay million hmm. vraiment jébbal ko suñu borom. Hmm. jébbal ko jaamu yàlla yi. Hmm. dëkk bi dafa metti nit ñi am nañu dañuy woor ba ngoon lu ñu am lu ñu lekk. am xam ne dañu maa woo ñu ne ma yow sax li nga def xamoo li nga def sax xamoo ko yow. ndax sax am lu ñu ndogoo. daawuñu am lu ñu lekk. ñenn ñi bu ñu amee mburu ndogu. reer duñu ko am noonu la ñuy continuer ba suba hmm. ñenn ñi dañuy dem ci jàkka yi hmm. wala fu mbooloo mi di daje yow li nga def sax xamoo ko ñii dañ daan kolo kolo di tegle di di dajale di di def ay affaire hmm. mais li nga def sax xamoo ko kon damay def liggéeyal yàlla ak yonente bi def ma ko ngir ngiskal def ma ko ngir dara soxlawu ma ci merci soxlawu ma ci oke dama ko def ngir suñu boroom ndax man jaamu yàlla laa bu gën a xeeb ci jaam ñi jaam bu gën a tuuti nag ci jaam ñi vraiment di di di di gën a xeeblu sama ci ci kanamu suñu borom. Mm. yàlla nag su ma joxee xam-xam jox ma baatin. Mm. vraiment jox ma wërsëg dama ko war a bokk ak jaam ñi. Mm. loolu kese moo tax ma def ko waaye du ngis tal lu dara te ëpp na sax vingt deux trente deux millions yi. parce que chaque jour maa ngi génne. chaque jour ndogu bi maa ngi génnee xaalis du ma compter. ëpp na loolu sax chaque jour. lii day jeex nga jënd chaque jour. macha allah te te loolu sant yàlla la rek. Mm-hmm. loolu damay conseiller. Euh, na ko na ko na ko ñëpp def mm-hmm. muy sëriñ si ñi nga xamante ne dañuy def ay ñaan aussi nañu jéem a def loolu mm-hmm. dimbali nit ñi profito daal génne ay ceeb ay diwlin ay loolu tamit lu baax la mm-hmm. macha allah nañu fexe ñu def loolu ñuy def ay ñaan di am xaalis aussi am bu dee yaa ngi am xaalis na ngay dimbali nit ñi daal loolu tamit am na solo conseil bi may def la defuma ko ngir ngistal ngir dara te man macha allah kenn nekkul sama ginnaaw sama doole ak sama ñàkk xaalis yi nga xamante ne maa ko ñàkkal sama bopp liggéey ci sonn ci moom laa génnee jox ko jaamu yàlla macha allah di ci uti yàlla ak yónneent bi loolu kese la Moustapha. macha allah euh, laaj bu mujj bi mooy leelatul xadri. waaw bi mi ngi ñëw. Hmm. ñu buggoon xam nan nga koy waajalee parce que gis nañ bële passé génne woon nga lu ma 39 millions. waaw ñu bëggoon xam rek nan ngay waajalee leelatul xadri bi. waaw bi yoon tamit ñu ngi koy préparé comme d'habitude rek macha allah di préparé laytu xadri bi xam naa ne vraiment dina neex. Hmm. Euh, dinañ préparé ndax nag jour laytu xadri suñu borom am na lu ma defal inna inna. inna anzalnaahu fi laylatul xadri wa ma adraaka ma laylatul xadri laylatul xadri xayru min alfi sahri talmazalu malaikatu wa ruuxu fiiha bismi rabbihim min kulli amri assalaamu hiya ataa matlayin fajri mm-hmm. xam ngeen guddi goo gu rëy la guddi gu sell la mm-hmm. kon saa su ne su ñëwee dañ koy màggal mm-hmm. dañu koy teewal fa yéene jàng alxuraan wàcce ay kaamilu alxuraan fas yéene def ay bernde vraiment macha allah euh, guddi gi yëpp ñu fanaane ko zikkar vraiment euh, ba bërset macha allah su ko defee ñu daal di ñaanalante ñoo ngi koy préparé di invité taalibe yëpp. Mm-hmm. xam naa ne bu ñu jógee ci lii dañuy koy préparé. Mm-hmm. vraiment jéem a def ko Cambérène nag lañ ko bëgg a defee. tante ci buntu kër gi defar baas ba mu rafet. invité ñëpp vraiment invité ñëpp ah kilifa yi ah invité ñëpp macha allah. Mm-hmm. ñu jàng alxuraan ñu daal di sikkar màggal yàlla. ndax nag alxuraan dafa am doole ñu gën a màggal alxuraan ndax nag lépp alxuraan la lépp lu may def ci alxuraan la maanaam léppom alxuraan la tur boo xoolee yaramam bi yëpp alxuraan la kon loolu vraiment moo tax saa su ne dañuy gën a def lu ëpp li ñu defoon daal macha allah. sëñ bi ñu bàyyi la nga tàggoo mu mel ni li ñu cërale loolu ci waxtu jeex na amoon nañ bëgte di ànd ak yow sur la TMS TV. waaw mm-hmm. di sant yàlla bu baax a baax di julli ci yonente bi salaa salaam di jéggalu ñëpp nag vraiment di kontaan bu baax. Mm-hmm. ci seen émission bi muy émission li ci jinne mm-hmm. émission la bi nga xamante ne. Euh, dinaa mën a développer lu bari. dinaa mën a wax lu bari. pour ñu comprendre ci dafa mel ni université laa toog. Mm-hmm. vraiment di jàngal nit ñi di leen won vraiment mm-hmm. lii ak lii mooy lan parce que njëriñ la nit ñi dañ ñuy bàyyi xel bu baax a mm-hmm. ñi ndeysaan dañu may woo di ma sant ne ma sëriñ bi. ah dimbali nga ma de parce que yow yaa tax léegi maa ngi normal maa ngi ànd ak sama sago maa ngi nekk si jàmm. yaa tax nga léegi ma nekk sama jabar normal da ngay gis une deux trois rek ku jékki-jékki soxnaam ne ko may ma sama baat. fekk ne du moom jinne bi la. macha allahu. ñi ñi yeewu nañ bu baax a baax ci TMS TV tele bi nag tele bu am barke la ndax nag télé la bi nga xamante ne boo ko seetaanee mm-hmm. euh, bu lay dafa am lu nekk ci yow day daal di génn wala mu yëngu ah wala nga nga am jàmm mm-hmm. kon na xam nga ne loolu tamit c'est la première fois ci histoire mm-hmm. ci ci télé nga xamante ne da seetaan vidéo yi rek am lu nekk ci yow mu dañ nga am jàmm nga féex mm. kon nag sant yàlla la kon nag di kontaan bu baax di leen ñaanal di ñaanal ñëpp di mhm. nekk ci kër gi fi yëpp di ñaanal taalibe yi di kontaan bu baax a baax mhm. di jéggalu yàlla na def jàmm ak xéewal macha allah comme ni ñu ko daan defee rek mhm. mbir mi moom noonu la parce que bu la yàlla dimbalee jox la xam-xam da nga koy wane loolu moo waral ñuy wane suñu xam-xam di jàppale jaam ñi loolu kese la vraiment di sant yàlla am na nag jinne yu baax tamit yi nga xamante ne vraiment ay jullit lañu ay xaafisul xuraan lañu ne vraiment ba ñoo ngi ci yoonu siraatal mustaqim vraiment macha allah ñoo ngi ànd ak man di tarbiyu di ma liggéeyal lu ma leen defloo ñu def ko fu ma leen yónni ñu dem lu ma leen tere ñu bàyyi ko kon nag ñoom it maa ngi leen di sant di sant sécurité yi aussi ñëpp euh, di sant yéen ñëpp journalistes yi di sant taalibe yi nekk bitim réew yi rawatina euh, international association Thierno Moule Sow international bu nekk ërëb euh, bi bu nekk Sénégal bi maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp macha allah macha bi macha allah xanaa di sant di gërëm rek la xalif général des Diènes le roi de la médecine traditionnelle ci émission bu am solo bi di la sant aussi di la gërëm ci euh, invitation bi ci plateau bi. Mm. alors di gërëm mbokk internet yi mbokk téléspectateurs yi safoo di seetaan TMS TV télé bi nga xam ne mooy feeñal lépp lu nëbbu euh, làmboog njëriñ donc nu remercions nos chers internautes et téléspectateurs donc de la chaîne préférée mm. TMS TV la télévision qui montre tout ce qui aussi le xalif général des Diènes le roi de la médecine traditionnelle sans pour autant donc oublier. mon confrère, mon colleague, mon doyen, Mustafa Fall. Ladies and gents, dear followers of TMS TV, we are thanking a lot, you know, all the followers of TMS TV. Thank also the Khalif General of the Jinns, the King of all the Kings, and uh, my colleague, Mustafa Fall, the one who just invited me in this very uh, great broadcast. So thanks following us every time on TMS TV, your favorite channel, Mustafa Fall. di ànd ak yéen ci émission li ci jinne ak le xalif général l' la le maréchal le bourreau des dëmm mhm. le roi médecine traditionnelle du monde the king of the king ou bien le king des kings muy alaaji Thierno Moule Sow kon dañu koy ñaanal di ko bàyyi yàlla suñu borom saa su ne la di ànd ak moom ci émission li ci jinne ma àndoon ceeg sama naataango Saliou Samb kon ñu ngi leen di jox dig daje euh, ci yeneen i waxtaan jërë ngeen jëf sur la TMS TV